ba xam di nga ko mën a seetaan. waaw a seetaan. na di nga gis. waaw na dinaa gis moom ba xam. Ah. da ngay bu fekkee da ngaa dëkk yeneen kër yi. na la neex bu fekkee da ngaa <laughs> damay piir. Idriss Idriss Idriss <laughs> Idriss. Idriss. <laughs> ñoo nii kaay ci làmb ji. kii. ma lambaay nga ca lambaay biram dumbee nga ca bul maa jara tëggal maa jël boy wi way bi maa jara way maa jara feccal man maay kii kan la bi tafaatil ak kii kan la nii doomu refaan in my eyes doomu refaan ah doomu waay Eh, eh, eh, sunu làmb tey li ngeen tëjee weekend mi neex na ma mu ne mu ne mu ne arène nationale Tapha Tine contre Balla Gaye xam nga kañ la ñaar fukki fan ak benn ci weeru juillet mooy maanaam d'ici quelques d'ici quelques jours yaa ngi dégg Balla Tapha <laughs> Sox Mama Lamine Blindé Zambala Nabou je veux que tu retrouves ton visage joyeux mais pas ah, tu, tu n'as pas besoin d'avoir peur. je non, te jure il faut pas t'inquiéter. regarde dafa doon dafa tegle. non ni ma la xamee yow. maanaam. ci dois me connaître yow du xam nga ma. waa ci. ma ne kafe bu ñëwul ci plateau bi bi la sedd naa mais Nabou kafe bi dina ñëw mais ana kan la café bi ñëw Nabou. <laughs> Nabou. Mhm. Tapha Tine ma wax ne man naa la wax ne. <laughs> waaw Nabou doo siggi bu Sabine di wax ak yow. man ne xam naa ne àdduna juróom-ñaar lamsal da yàqu fi dàq ci àdduna hmm, ton regard <laughs> souvent il est jeex <laughs> mais n'empêche ko foofu la charme bi ne nabu tafatin nee na ma wax la ne <laughs> combat bi le 21 juillet la te balaa ñu caa yegg bu ñu rombee anniversaire u Samba Ndiaye ba romb anniversaire Ousmane Sonko nee la vingt ca Pikine gi nga dëkk dina la seetsi yaa ngi dégg newoon naa ko nag ne wóorul nag boo demee Pikine nga fekk ko fa parce que Nabou comme Pikine la dëkk mais waa Géejawaay la faral mën na am mu bokk ci fan club bi nga xamante ne dañuy dem ànd ak Balla Gaye stade ba léegi nag comme pour damay bañ mu ñëw du la fa fekk ma newoon naa la laaj ba xam ci kan la. Pa Moussa ak kilifa. ah ma ne woon naa la ba xam dama leen di bëgg laaj ba xam ndax Nabou Nabou eh. waaye Nabou dimbali ma damaa bëgg a wàcc stade bi ma toog nii. kan lay seet si. yow. baax na bu ñëw waxtaan dafay neex borom kër gan borom kër moo koy dalal mu ñëw <laughs> waaye kër ga sama jëkkër fay borom kër nekk mu ñëw moo ma ci jaaxal locataire laa ci dëgg mag yow yam yem ci kër gi dëgg te man waa kër gi ñaar fan ñett ñu génneel mu benn valise bu tuut tegal ma ko ci buntu waaw kay mag yow a de nañu yem rek ci kër gi <laughs> dàq am fu ñu jëm ah, moo ko fa am kay te mën a sañse vos téléphones avec le micro s'il vous plaît. Femme Sall. oui c'est bon. fay na la loolu chaque chaque jour dama koy imaginer yàlla nga dem màkk sax na ndaw waaw ndaw sànni jam raw bu metti ay doj day lay yóbbaale du yóbbaale xeer <laughs> ngone inchaallah ça va bien tay ta nga sa sourire moo joli macha allah Yves waaw mais ajaratu mami sama mu baax bi keroog dama ñëw fii ñu ne ma da nga xaw a tawat boobu ba maa ngay ñaan waaye boobu la gisee sa confidence <laughs> poste matisaat ñaa laa gis muy aal ma gis maam xarit njëri Fall ne waaye yéen nga xamee fan cafeem pexeem Penda Badji moom daa tiit ci nelaw di selfie. non man moo ñu yeb. daa tiit ci nelaw sël bu sànguwul. chef de bande. chef de gang la lépp ci boobu. bu mag gars yi dañoo aalu. waaw. wax dëgg yàlla ku ma ndaw merci beaucoup tàdd pay di ruube. jëlagul café bandi bu ndaw bi rek laay topp yow. am lu na ole fandi bajo. i fandi bajo i def tuuti bajo. revue de presse bi briefing ma briefing ma ci revue lu xew ci réew tey yàlla moo dogal ni damaa jeexal xam nga teg jeexal. kenn ci yéen du stress ci plateau bi tey tey damaa yeewu teg bu la bi rek jeexal tàkk. booy dem màkk daal day fi man di ma jox. waaw. Oh. bonjour femme. salaamaaleykum wa rahmatullah. <laughs> taal nga sa micro. yaa ngi ne nuyoo la gerte gi lay seetaan. <laughs> kilifa na ñëw toogee ne nee na bu ma toog fii de. kilifa fay nañ la tegal. tey kaw diggu pénc amul kaw pénc moom kaw pénc. <laughs> démb seen carte traité naa ko <laughs> leen ko nag am nga bac am na. moom ngeen kaw pénc xale ñu bari am nañ nag. Ah, ñu def deuxième tour am nañ de macha allah. man ñi ma xamal ñu def deuxième tour xam naa tey dinañ jàll. Paa Ousmane ah, Baldé boo demee deuxième tour doo ne oral laa dem rek. kese booy dañ leen di laaj ndax am nga ñu naan damaa bugaan. damaa bugaan mooy aw ma mooy deuxième tour. waaw non deuxième tour bi mooy dama maa ngi bugaan mais boo amul looy wax damay xaar beneen. <laughs> maa ngi kader. 2050. <laughs> non mami mooy toog fii. nga daw. ma fay ko may léegi mais mayawaat ko rek mayaat ma ko joxaat ma ko. kaa may ci yoon. joxaat ma ko dañ ma kaa may ci yoon. dañ ma kaa may quoi. ku la ko may dee. wax dëgg yàlla ngooy dagg. may na la lu la tey. da taay. ngoo. kilif ziar <laughs> eh, yaa doy waar nag. ayca kilifa. asalaamualeykum wa rahmatullah. ajaratu nabu mu sell mi. ajaratu par anticipation. amiin amiin. yaa xajja. yal na leen yàlla dégg. yaa xajja nabu. merci merci siyaar naa la nag. delloo siyaar bu baax jaajëf waay. na internet yi sañ nga nag yow kilifa sañ nga def. man de ah. woy dama mën a sañse nag ak nga niveau bi de kawe na de ay së da sañse ba màtt géej gi la nag léegi yàlla baax fii moo tax man maanu naa ay ca jërëjëf ajaratu moom yi merci pour la revue ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax dañuy enchaîner ak euh, ajaratu euh, Ngoné mu daal di ñëw ci euh, cas sur cas tey bi ngay njëkkee mooy dangay ñëw ci suivi de cas ci mhm. li doxoon ci diggante sala Sow ak aw Baba Thiam waaw démb taxaw nañu ci tribunal ginnaaw boobu ak léegi bi ñu koy dégg foog naa def na ay weer mhm. ñu ne woon nag ki nga xam ne moom mooy awu baaba mhm. ba ñu xamante ak léegi yàgg na waaye démb dossier bi yàgg na ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru